asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice de la Strada soxna si maa ngi lay ziar yow mi posé question bi waaw dama ko bëgg a def vidéo nag bu ko defee après ma dugal ko YouTube pour mu gën a yaatu ndax question bi dañu bari dañ ci am man nañ ci am problème euh, da ñaari question yoo xam ne dañoo nuroo mais bokkuñu mais nag dafa am ay mots clés yoo xam ne ñoom nga ciy topp fii dafa wax ni in presenza del segnale raffigurato boo doxee gis signal bii nga xam ni mooy diritto di precedenza nei sensi unici alternati edel semaforo ci nga fekk ko foo xam ne mook semaforo ñoo fa nekkandoo abbiamo la precedenza bàyyil xel baatu abbiamo la precedenza ah, bàyyi ci xel bu baax mu ne abbiamo la precedenza se il semaforo è ci luce sax mu ne bu fekk ñun ñoo am precedenza bu fekk semaforo dafa rouge xam nga semaforo bu rouge moom amoo precedenza waaye nag fi mu jeexal fi mu jeexalee ngay bàyyi xel ma la gente del traffico euh, ci ordine di passare mais nag agent bi nga xam ne moo yore trafic mooy policier bi moom dañoo wax ñu jàll fii fekk nga fi ñett tableau bii nga xam ne moom danaa la yow yaa am précédence yaa war a dem ab yamala précédence ak sémaphore bu rouge sémaphore bu rouge moom nee na yow amoo précédence waaye nag nga fekkaat fa tamit l'agente del trafico mais vigile bi moom mu nee na la passaareel maanaam demal léegi vigile bi dañuy wax ni mu ëpp doole ñëpp bu bu jàllee moom vigile bi sémaphore moo ci topp bu sémaphore bu jàllee tableau bi soog a ñëw mu tableau bi jàllee rëdd ci suuf ñoo mujj léegi comme vigile baa ngi fa te vigile bi nee na la demal sémaphore bi rouge lu muy rouge rouge yow bu taxaw police li police bi wax moom ngay def ndax mu ëpp doole sémaphore bi kon fii vert la waaw bu fekkee tableau bi daf fay nekk nee la demal mais sémaphore bi rouge sémaphore bi nee bul dem policier bi nee la demal li policier bi wax moom ngay def ndax ma ëpp doole ñoom ñëpp moo leen ëpp doole bu ñu demee ci beneen bi nag lu tax mu ne false mu ne in presenza del segnale raffigurato ba tey même signal bi boo doxee ba gis ko e del semaforo a ak sémaphore bi am ñett lampe yi abbiamo ah, la sa mu ne ñun ñoo am precedenza se il semaforo è spento bu fekk fekkee sémaphore dafa fay ok sémaphore bu fayee bu fekk wante ni moom rek ak tableau bi ñoo fa nekk bu fayee moom sémaphore nga xam ne doxut spento mooy fay bu boobaa tableau bi ngay topp te tableau bi nee na yow yaa am precedenza waaye nag li yàq affaire bi mooy la gente del traffico moom it maa nga fa mooy policier bi moom ci ordina di fermarci daf laa wax nga waxu la nga passare dafa ne nga taxaw comme daane nga taxaw rek yow mënatoo dem kon non abbiamo la precedenza fii non abbiamo la waroon wax non abbiamo la precedenza mais pas abbiamo la precedenza ndax sémaphore bi euh, vigile bi moom nee na fermarel fermar ci mooy taxaw niñ taxaw waaw loolu da ngay bàyyi xel euh, signal yi dañuy ëppante doole signalétique stradale te vigile nañ ko considéré comme signal stradale ndax moom bu fa nekk day taxaw taxawaayu signal parce que bu sémaphore bi rouge moom mu ne la taxawal mu ne demal yow taxaw nga xamoon sémaphore bu rouge mais bu vigile ne demal rek da ngay dem bu verte mu ne la taxawal da ngay taxaw waaw bu fa nekkut sémaphore moom moo ëpp doole bu fa sémaphore bi nekkut tableau yi ñoo ëpp doole bu fa tableau bi nekkut euh, rëdd yi ci suuf ñoo ëpp doole am na fi ñuy waxee am na beneen signal boo xam ne sax ci tunnel yi ci tunnel day wax ne boo duggee ci tunnel euh, fekk muy mu am danger bu fa nekk léegi nag euh, vigile bi tableau bi am lu mu la wax tableau yi fa nekk signal estrade signal yi nekk ci biir tableau ci biir euh, sémaphore bi am indication bu mu la jox vigile bi jox la indication boo xam ne dafa nekk une nette contraste maanaam dafa wuute ak li tableau bi wax mu ne li tableau bi wax nga war a def bu waxee loolu falso lay doon toujours policier bi bu fa nekkee rek moo ëpp doole lépp tableau bu nee la jaaral nii policier bi ne jaaral nee fi policier bi wax fa nga war a jaar kon jërëjëf